salaamaaleykum chers internautes yi leen di nuyu waat di leen siyaare bu baax a baax a baax eh, di ñaanal ñëpp màggal bu nangu ak jàmm ñaani yi yàlla na ko yàlla nangu ziyaar yi yàlla na ko yàlla nangu jëf yi aussi yàlla na ko yàlla nangu ñuy siyaar képp ku demoon Touba ba siyaar ñu fi desoon di màggal ak ku mën a doon ak foo ko mën a màggalee rek ñu ngi lay siyaar baax ñaan yàlla yàlla nangu ko parce que Serigne Touba mi nga xamante ni moom moo waraloon ñu màggal bés boobu ak yonent yàlla Muhammad ñu leen di nuyuwaat fii ci seen euh, jotaay xel xel yi euh, di wax ni namoon nañ leen aussi comme d'habitude ni ñu koy tàmm doyen donc Jules maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare la gis. Abdou Khadre yi xam naa namoon nañ waaye namoon nañ la <laughs> ñu ngi leen delloo ziar di wax comme ni nga ko waxee rek euh, di ñaan ci màggal gi nga xam ne lañ jógee lépp luñ ci ñaan suñu borom nangul ñu ko yal nañu ko nangul barke borom Touba. ak sa amiin barke borom bés bi. amiin amiin amiin yàlla amiin moom xam naa ne dañuy euh, tënk mbir yi parce que xew-xew yi bari na mais mënuñu wax lépp. dëgg la. li fi jaar yëpp bari na mënuñu wax lekk li ci ëpp solo mooy li ñuy wax di ko répété la. tey grand bu may wax ni souvent bu ma la nee dañu nar a dugg ci affaire euh, immigration clandestine. Mm-hmm. bon loolu wax nañ ko waxati ko. dëgg la waxati ci wax ñëpp wax nañ. dëgg la dëgg la mais dañuy gis toujours mi ngi gën a yokk. Mm-hmm. ñaawteef yi mi ngi ciy gën a bëri. dëgg la mi ngi gën a bëri. dëgg la xam nga doo xam daal lan nga ciy waxati. waaw maa ngi dégg rek tey tey ci maa ngi dégg tey rek ci suba. Mm-hmm. Euh, ca ñu ngi wax ca ndar waaxu ndar bi. Mm-hmm. ay ndaw yu doon dem ci mbëkk mi. Euh, ñu ne marine national euh, teg na ci loxo lu tollook Euh, téeméeru ndaw ak fukk ak juróom-benn muy cent dix huit personnes. Mm-hmm. Uh-huh. dëgg la mais teg loxo bi maanaam ci yan anam parce que tamit toujours dañuy wax ni. maanaam wëññi leen rek wëññi leen. waaw ah, wëññi leen indiwaat leen mais dafa ci am loo xam ne dañ leen lim ma dégg leen ñu lim leen ci ay anam yoo xamante ni doy waar la maanaam xiif da leen sonal am na si ñu ne dañu waaw loolu xaw ma ay mënaat. waaw dem bay loolu mooy ñi nga xamante dañoo demoon ci géej gi. Mm-hmm. loolu beneen yeneen ndaw yi demoon ci mbëkk mi. Ah. seen euh, seen gaal yaakaar naa dafa rër ci géej gi ñooñu marine nationale tamit moo leen sauvé ci li ñu wax dañu dem bay xiif ñi dañu déshydraté dañu dem ba dañu déshydraté euh, amuñu lu ñu lekk ñenn ñi dee euh, ñenn ñi demoon nañ ñenn ñi ci lañ fa jot am comme lekk daal mooy benn bonaat buñ fa gis ci lañ ko daal di rey daal di ko lekk ñàkk pexe xam nga loolu ci lekk loo xamante ni ab jullit xamoo ndax daggan na wala dagganu la wala mais loolu yëpp loolu yëpp muy tegtalee Abdou Abdou mhm. mooy métti jubluwaayu réew mi. Mhm. il faut ñu wax ko nañ ko wax wax ko réewam Macky Sall mi métti na mhm. dafa métti mhm. euh, ndaw yi jamono mhm. su sañoon ci jàngee ci biir dëkk bi bu sañoon dafay liggéey ci biir dëkk bi waaye kii jàngee métier ci biir dëkk bi su fekkee ne métier jëriñu ko dara loolu moo tax ñu dem di risqué ndaw ñuy dem di deex toujours ñu ngi gis information yi ah xibaar yi ñu ngi koy gis ñu ngi gis ne nit ñaa ngi dem ci géej gi nit ñaa ngi dee mais teewul ñu ngi dem loolu yëpp lu ko métti am na ci ñoo xam ne dañuy jàpp ne Sénégal na métti na métti gaay métti gaay goo xamante ne nañ xarul seen vie ñu dem bu ñu amee ñu ñu teeral seen waajur waaye toog di jàkkaarloog seen waajur saa su ne te mënuñ koo teral wallaay dee sax ko gën mais non seulement njaboot sax voilà sañ njaboot parce que fii moom da ngay dañoo am euh, boo xamante ni bi nii dañoo am habitude teel a tàkk soxna teel a responsable mm. mais yow boo teelee responsable te say responsabilité réew mi nga ne mm-hmm. yaakaaree woon ko fi mm-hmm. yow permettre la nga matal lépp wala li ci xaw a néew tuuti sax nga mën a def ko tamit day xaw a métti. day métti day métti sama morom. dëgg la réew mi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. na kenn. dëgg la donc loolu yemul ci rek ki nga xamante ne bi nii dem na Europe wala bëgg na dem ñi fi ne ñoo la gën a bëgg a dem. dëgg la fi mu ne ku fi gisoon fi mu ne gaal bu taxaw nii ne la doo fay dërëm. dëgg la da ngay dem ñenn ñu bëri li leen tënk te bañ jaaxal leen mooy koppar ya ngay joxe waaye bu doon ni gaal gratuite moo fi ne lii de Sénégal du wallaay du du bëri loolu yëpp day tegtale méttiwaay réew mi mhm. méttiwaay réew mi euh, te wax dëgg yàlla da gis ñi nga xam ne ñoo fare ci euh, ci weneen wàll wi mhm. ñoom da ngay gis ku taxaw naan waaw xale yi war nañu toog fii dañu war gëm seen bopp xam ne mën na njëriñ seen bopp mhm. mais xam nga dafa am lu lu fiy dëkk xale yi ndaw ñi li leen fiy dëkk mooy une très bonne politique de l'emploi su fekkee ne affaire employabilité mhm. ñi nga xam ne le ministère de l'emploi doxuñ ci dox biñ ci war a dox mhm. ñi nga xam ne ministre de la jeunesse à Pape Malick Ndour yëkkati na fi ay kàddu ne ñu ngi fexee ba def def ay jéego yoo xam ne mhm. ndaw ñi dinañ mën a toog mais ba léegi li yàq Sénégal mooy la partisanerie partisanerie bi mooy par exemple bu ñuy wax dañ naan ndaw yi ndaw yi ndaw ndaw ñi ku jaar fi nga war a jaar dem ay fonds wala dara dinañ fexe ba nga xamante ne nga am liggéey mais ci gis ci gëstoo. Hmm. da ngay gis ne carrément. Hmm. affaire yi affaire partisan la maanaam bu ñuy wax dañ naan ndaw ñi nga xam ne ñoo fa rek la mouvance présidentielle bu ñu demee. Hmm. ci kër yooyu parce que fekk indiqué nañ leen benn waay joo xam ne bu ñu demee seen dossier dañ koy dugal mu jàll. voilà maanaam xëy ndaw bi noonu lañ koy su su ko defee nag yenn ministre yi ne mun nañ toog ci plateau yi ñu ngi fexe. ba ndaw ñi fu lépp loo xam ne nii état bi euh, jéego bu mu war a def pour ndaw ñi toog fii ñu ngi koy def. Hmm. mais en réalité. nga ko ndaw ñi nga xamante ne xëy na ñoo bokk ci ku jéeg euh, ci ci ku jéeg politique. Hmm. dañ leen di ràññee. non dëgg la te loolu baaxul mooy ku amul loxo bu gudd rek bokkoo. voilà yooyu moom dañ cee war a taxaw réew mi maanaam dañoo war a xoolaat. par gi bëri parloo gi bëri na. Euh, kumba am nday kumba amul nday gi bëri na mm-hmm. donc réew mi ñun ñëpp ko bokk mm-hmm. ñii di jëlaate sa jël say nit yow nit ñooñu ngay jël dinañ ci dugal d'accord ci réew mi la bokk mm-hmm. mais réew mi ñoo man ko dénk la réew mi pour nga doxal ko je pense que ni nag boo demee bay doxal da nga ko war a jaarale ci njub loolu mooy dëgg moo tax fi mu toll nii mbir bi day jaxasoo ba tellement da ngay dem ba la fin pour fekk seti ci li ngay nekk di wax noonu mooy eh, dañuy gis toujours pàccoo bi toujours bu demee ba tollu fenn fi rek Paco laa koy tuddi dëgg la dëgg la parce que Youssou Ndour bu xëyee xëy ne dafa démissionné fële xam nga euh, ngi dégg ñuy annoncé naan am na lu muy waajal lu rëy hmm. est-ce que dafa bëgg a dekkilaat parti ba mu doon wax bëgg a jàppee réew dëgg yàlla dafa yab Sénégalais yi ah. dafa yab Sénégalais yi parce que lii wane ne dafa yab Sénégalais yi hmm. mooy que moom gis nga tey jii liñ fi daanee ndaw ñu bari mm-hmm. ne liñ leen fi daanee ba yóbbu leen ci kaso bi tey jii di wax ne carrément dañu dañu def appel àll l'insurrection dañu woote fipp mm-hmm. ba tax ñu teg li moom su jëm boppam bi fi réew mi tollee fii mu mm-hmm. wax na ne carrément na ndaw ñëpp génn jàmmaarloog ab Wade effectivement mu jël teleer bi teg ko ci kanamu askan bi képp ko am la naqari nga dem fa ngay ñaxtoo mais ñëpp gis nañ ne teleem bi dafa jéng boor dafa jéngi boor avec tout le respect bi nga xamante ne am nañ ko ci les journalistes yi nekk foofu. Mm-hmm. mais xam nañ ne carrément affaire bi dafa demee boor. léegi nag li ñuy gis mooy que moom. Mm-hmm. candidat ba mu doon soutenir nee na du dem élection. Mm-hmm. mu xëy dem ne démissionné na quitté na Benno Bokk Yaakaar. mais mais mais mais dañ naan kan la kan Youssou Ndour kan la yàpp bu ñu sukkandiku ci kàddu yi nga xamante ne nii wax na ko jamono yi passé président Macky Sall mu moo gën ci ñun moo gën ci réew mi waa ki gën ci moom koy dafa war a ànd ak moom ba keroog rek. waaw dëgg dëgg surtout amul benn raison bu war a tax mu quitté benn Bokk Yaakaar moo ko xam nag. Hmm. waaye Sénégalais si jëm boppam gis nga politique bu njëkk bi amoon. Hmm. da ngay ñëw ànd ak benn waay. mu falu nekk ci nguur gi bu demee bay waaj a jeexal mm. nga roccee ko dem taxawee ne bi xaaraat keneen bu euh, xaaraat keneen koo xam ne mu ngi ñëw nga ànd ak moom mm. moom xam na ne fekkee ma ci booleem boobu mm. mouvement boobu di fekkee ma ci booleem wala moo gën a xam ne carrément bëgg nañ ko parce que lépp lu mu am comme ni ko ni ñuy waxee lépp loo xam ne nii am na sénégalais yee ko defal ci wàllu musique bi muy def. musique bi représenté na Sénégal. Mm-hmm. représenté na ko fépp fépp ci Afrique. Mm-hmm. mais ba mu duggee ci wàllu politique bi dafa ñëw jéng. Mm-hmm. ay euh, dafa jëng ci biir jéngam googu. nit ñi di nekk ci ay jafe-jafe mm. muy tag muy tagg mm. président Macky Sall am na droit tagg ko parce que moo ko nommé mm. ministre conseiller en tant que membre euh, en tant que membre ci Benno Bokk Yaakaar waaye dafa am foo xam ne bu fi réew mi tollee ñoom moom comme kàddoom jëm na kaw dañ ko soxla woon ci jamono yee passé kenn dégg ko mu wax ci est-ce que dina mën a wax tamit waaw mais parce wax mais xam nga damay wax li jour Babacar Justin Ndiaye waxoon mu ne un allié n'est un allié. moom allié la bokkul euh, APR allié la dafa dafay soutenir. waaw comme kuy soutenir nit ki la bokkoo ci parti bu réew mi am na foo xam ne bu fa tollee donte da nga koy soutenir war nga wax ne carrément kat réew mi fii mu toll nii ñu ngi ñaan ñu ngi euh, euh, ñaan. fexe ñu def situa def ay ay ay jéego yoo xam ne nii réconciliation amat. Hmm. Abdou Khadre li am Sénégal léegi. gis nañ ko li am Sénégal gis nañ ko da gis tey jii ka bokk. ci kujje gi ak kii bokk ci beneen parti yaa ngi dégg dem nañ ba duñ wax ak duñ tuddante di eenalante te jamono ñu toll ni politique bu njëkkoon waroo ci xalaat la rek waroo ci xalaat yow nga gisee nii man ma gisee nii mais dem na bu jug waroo ci xalaat boobu ñuy wax adversité te tubaab di ko woowee adversité nekkatu fa léegi en la ngay yéene sa morom nangam dal ko te ñoom dara ëpp leen kenn ëpp leen information. Ah donc moo tax démission bi daal. Hmm. du ñu jàpp ne rek. dafa jàpp ne lii day jeex mu dem taxawee nele ak mouvement boobu. Hmm. xam nga ne mouvement boobu mënut a gagné biir dakaar sax. Hmm. man wax naa ko fekkee ma ci boole bi fekkee ma ci boole mun ta gagné Dakar na dem campagne yi di mairie Dakar. est-ce que est-ce di ñëw deux mille deux mille vingt six na Youssou Ndour def def déposer candidature mairie Dakar. Hmm. du ko gagné. est deewul sa parti boobu. parce que ah. bi ah, dem ci beneen parti jàmbur. toog ba mu neex la nga nga démissionné ni da nga bëgg a mais loolu est-ce que dina bëgg ko taxawalaatee tamit dina dina. gars yi dañuy langal seen dañuy langal seen manel man maa wax ne Youssou Ndour si jëm boppam. mouvement boobu. mouvement boobu. donte nag am na ñu ci nekk mais gis nañ ni carrément affaire bi dafa faree boor. moom na dem yóotu ji mairie Dakar rek. démission bi mu def ci ministère ba nag. waaye ministère boobu ñu ñu ñu ci bari mais gisoo commentaire ci internet bi ñu dañ naan on s'en fout c'est yéen yéen neen la ñii di commentaire naan carrément dafa dem ba mu leer la ne waa ji ngay àndal. pare na pare na. Mm-hmm. nga ne xaaral nga démissionné. moom mënoon na démissionné sax des biir Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. su fekkee gëm na li décision bi président de la république décidé. Mm-hmm. parce que dafa décidé ne. dana samp candidat. moom na décidé ci ci poste mini na démissionné ci poste ministre maa ngi dégg ñu naan samedi la war a wax sax voilà léegi moom na démissionné ci poste ministre bi mu nekk waaw ministre conseil bi waaw am na Benno Bokk Yaakaar comme nee na Macky moo gën ci réew mi kon képp ku Macky tànn na war na jàpp ne kooku moo gën ci réew mi parce que le meilleur choix moo waral yi xaay tànn Benno Bokk ah, Yaakaar dafa dégg dékkil parti fële samp ndëndëm samp ndëndëm waaye ñu ngi koy xaar sénégalais yaa ngi koy xaar <laughs> ah. sénégalais yaa ngi koy xaar ah, man waaye ba bëgg nañ ko ci musique bi muy def mais depuis un certain temps ñëpp gis nañ taxawaay bi mu taxawee hmm. te sénégalais yi nag wax bu duñ toll ni nit ñi les gens man man man déggee nga naan ci musique bi kon ban expérience la moom ba kii Macky Sall boole boo xoolee moom li bi nekk occupé mooy ministre de la culture la musique euh, euh, euh, ministre de la culture la njëkk a parce que comme il fait de la musique mhm. am na tuuti voilà am na am na tuuti benn xereñte bu mu am pa mi amul njàng mhm. am na xere tuuti benn xereñte bu bu ci culture mhm. représenté na Sénégal dignement ci ci Afrique ci àdduna donc ñu jàpp ne moom bu ñu ko nommé ministre de la culture dina mun a booster la culture mais lu ñu mujjee dañ ko ah fu mu mujjee tourisme bi voilà donc moo tax nga xam ne boobu tamit ñaari yoon ko boole woon mais benn jàll benn benn benn jàll yooyu yëpp nga gis ne daal euh, ngi noonu daal changement war naa am euh, dañuy revenir toujours tuuti uh-huh. ci ci ci ci ci xew-xew yi ba tey hmm. fi ñu yaakaaree woon changement ñi ko yaakaaroon ci Sénégal yëpp mu Ousmane Sonko hmm. euh, teg nañ ko yoon Mm-hmm. waxatuñu loolu. Mm-hmm. mu def euh, grève de la faim bu mu doon def. Mm-hmm. dem na ba à la fin ñu ne arrêté na ko. mais li ci gën a grave mooy arrêté na ko mais moom dafa am problème mu lekk. de toute mu jàll parce que on dirait que ko gars yi a aidé tuuti mais problème mu lekk mu jàll la am donc loolu tamit est-ce que du danger. waaw xam nga xam nga xam nga euh, Abdou Khadre. lépp luñ mën a waxal euh, Ousmane Sonko. Mm. mën nañu wax ne battre na record u combat bi mu doon mëne am na ndam xam dama ne am na ndam. parce que dañu yaakaaroon ne combat xam nga xeex ku xeex ba tëdd ci salalu hôpital di xeex. Mhm. mais li ñu ma teg neexuma. Mhm. loolu laay métti lu ba tax ma tëdd ci sama lalu hôpital. Mhm. du ma lekk duma naan. Hmm? bëri na sax ay ay nit ñoo xam ne ni tu vois que ne euh, bon je sais pas nu ma ko mën a waxee tu vois des gens yoo xam naa ñu naan Ousmane Sonko manipulateur la mais yow docteur yi lay faj. Hmm. di saytu sa wàllu wér-gu-yaram. Hmm. mais booy def manipulation ah bi xiifal xiifal lu te xiifaloo mais ñooñ mënoo leen nax bu boobaa dinañ def rapport yónnee ko fa ko war a yónnee ko fañ war ko war a yónnee ba yëpp ñi ci war a jot ci ñi ci a jot jot ci. non bu demee woon noonu sax du am problème. voilà léegi kon kon manqué loolu. ñu koy ñaanal yàlla yàlla delloo siwaat ko. mu wax ne mm-hmm. euh, maître ma soxna kan maa ngi koy suivre ci benn émission. Mm-hmm. muy wax naan euh, euh, Ousmane Sonko. Mm-hmm. c'est une chance pour le Sénégal. donc wax dëgg yàlla. quoi qu'il advienne ah. Sénégal nag euh, euh, euh, li ñuy li li gën a intéressé Sénégal li tubaab di le revers de la médaille. Mhm. beneen aspect bi naan waa ji moo fi waxoon lii lii mu fi waxoon ak lii wute na mais du ñu jéem a xool toujours les qualités ku wax ne liggéey naa quinze ans. impôt mhm. musuma lekk xaalis bu lewul mhm. ñëpp xam ne impôt yoon la boo xamante ne ñu bëri yoon wu ñu jaar pour. maanaam tedd ci teddin goo xam ne sax duñ ko am ci seen salaire am na ñu koy def. Mhm. nga dem léegi di auditer nit mu génne lu bari teg ko sa loxo. Mhm. ne la euh, bàyyi ma dem. affaire yaa ngi dégg. Mhm. moom mu jël affaire boobu yëpp delloo ko. kooku wane na wane na wane ne ne carrément. Mhm. li ñëpp bokk moom amu ci soxla. dëgg la li ko ci lew rek moom ko ci intéresé mhm. li ñëpp bokk mooy alalu réew mi yaa ngi dégg. Mhm. moom loolu intéressé ko waaye li ko ci lew. muy salaire am ba muy fayeku. looloo ko ci intéresé mais les gens ne cherchent pas ça. accord ñu gis président dem fële euh, Touba. Euh, di ñuy waajal màggal. dem fa. ñuy lim koppar yu bare bare bare bare bare ci alalu réew mi. bu ñu jël def ko ci assainissement. Mm. wàllum euh, ndox meeg yooyu. ñu gis fa mu koy waxee noppeegul Touba inondé. waaw donc euh, ban jàngat dañ ci am. ba ci ba ci ba ci bésu màggal gi sax ba Touba ba ndox ma dooleekuwaat na. mais mais mais jafe-jafe yu métti nga xam ne circonstance ci ay jafe-jafe la la la la la màggal gi. baaxee ren mais mais mais mais c'est véritable mm. problème. c'est un véritable problème Abdou Khadir hmm. bu ñuy boo déggee ñu ne quarante cinq milliards def nañ ko ci assainissement wu Touba hmm. nit ñi di tëmb hmm. ñi war dalal nit ñi amuñu sax fu ñu leen dalalee ndax te ñu ngi jàpp ne euh, ñu ngi xalaat sax ñoom fu ñu euh, euh, fu ñu seen i bagage nu leen muccale ñii seen i lal di tëmb kooku naka lay dalalee ay ay ay ay gan ah quarante cinq milliards yi wax dégg yàlla mhm. ah waroon nañ ñu wax ministre de l' assainissement mhm. ak tey jii directeur u ONAS mhm. ñooñu waroon nañ ci communiquer oui directeur ONAS ak le ministre de l' assainissement waroon nañ communiqué le ministre de l' waroon nañ communiquer ci lu jëm ci wàllu woowu pour leeralal Sénégalais yi parce que tamit Touba ren dañ wax ne lu tolloog plus de plus lañ wax de plus plus de cinq cinq milliards doomu aadama ñu ngi foon lu tolloog juróomi milliards doomu aadama ñu ngi foon mais dëkk boobu ñi fay ñëw. dañ leen war a waajal. cinq millions. cinq milliards wax. ah bon cinq milliards ci doomu aadama. ñu ngi foon ci dëkk yi wuute ñi bàyyi ko bitim réew ñi nga xam ne ñii ci sous région bi parce que Serigne Touba dafa yaatu. d'accord mais cinq milliards bëri na mais loolu la presse bi wax. mais loolu yëpp man juumuñ mais loolu yëpp man xamul ma ci wax. Hmm. juum nañ wala juumuñ loolu yëpp xamul ma ci wax. Hmm. muy dëkk boo xamante ne nii dafay accueillir ay ot yu mel noonu. Mhm. nit ñi bàyyi ko fu nekk. Mhm. dëkk boobu dañu ci wàllum ndox dañu war a toppatoo assainissement bi mais ba ci robinet yi sax. Mhm. pourquoi ay citerne di jóge diggante quartier ak quartier di leen di leen yóbbu di leen leen servir ndox. yooyu yëpp nekk ay mbir yu tegtale ne carrément euh, politique bi nga xam ne nii. war nañ ko def ci Touba des na. li ci état war a def. quarante cinq milliards yi ñu wax ne moom lañ injecté foofu. wax dëgg yàlla mérito ay leeral. Mhm. man tey su ma jàkkaarloo woon ak ministre bi dinaa ko ci interview bi. Mhm. su ma jàkkaarloo woon tey jii ak Mamour Diallo nga xam ne moom mooy directeur ONAS dinaa ko ci laaj. Mhm. ne leen. cinq milliards yi nga xam ne ni état du Sénégal def na ko. ci ci ci ci ci ci Touba. lu tax euh, maanaam. ndënd ma ne fa ba léegi lu tax maanaam. dafa dafa gën a yokk sax dafa gën a yokk ndax lii amul xew mosut a xew Touba. Mhm. lii mosu fi xew ba tey ci biir Touba googu ne ñu gis euh, geste yi nga xamante ne moom la fa première dame def. Mhm. muy Marième Faye Sall mooy geste bi muy def nii rek. Mhm. Euh, mu indi fi nag coow lu bari ci biir réew mi. Mhm. ñuy partager image di wax ak ni Macky Sall nu mu def euh, euh, geste bi mu def si kanam bi ak tout. Mhm. donc image yi nag bon yaatu lool gaa yi di ci di ci wax. waaw dernièrement gis Serigne Bara Dolly Mbacké moom la Marème Faye doon doon waxal ci biir jotaay bi. Mhm. mais na loolu yëpp mën doon dëgg sax d' ko nangu. mais est ce boobu noonu foofu la yooyu wala foofu la ñu waroon defee geste man jàpp naa ne. Euh, bu dee loolu comme ni ko euh, euh, Baara wax dañ koy nangul kàddu yooyu. Hmm. parce que moom nee na moom la doon waxal. gis na image bi ko nangoyee ginnaaw buñ ko nangoyee. waaw ci wàllu ëdëb gi foofu lay bëgg ñëw. Hmm. maanaam du ëdëb du du yar. Hmm. barab boobu comme ku ne maanaam. Euh, barab bi nga xam ne moom lañ euh, la xalif bi toog xalif bi fi mu toog Serigne Touba fa toog ak mhm. foofu moom mooy tey jii Serigne Touba mhm. ci ci kaw suuf mhm. kon euh, barab boobu yaakaar naa waroon na am benn ëdëb boo xam ne nii bu ñu waroon a def war bu waaw war ma boo xamante ne voilà waroon na am war ma maa boo xam ne sax baatu arab la waaye waroon na am war ma bu ñu barab bi ba yenn gestes yi duñ ko fa def mais nag ni ko sénégalais yi interprété woon kon jàpp nga ne yow du du ak amuñ ci ak ñàkk maanaam mu di ko dalee Macky Sall ba ci première dame Marième Faye hmm. Marième Faye Sall hmm. ak Serigne Bara Dolly moom hmm. maanaam comme ñoom yooyu dañ ko seeqe di ko kafe maanaam laajul ñoom ñu toog seen biir waxtaan xam xam maanaam buñ koy kafe dañoo xam ci yeen bërëb lañ koy kafe man jàpp naa ne ku toll kilifa ku toll ni Serigne Mountakha toog ak protocole boobu yëpp sëñ Bass Abdou Khadre toog yor discours bi di wax ak teggin géer ñëpp ni ñu toogee ma jàpp naa ne loolu xanaa président. mais xam nga Baara xam nga Baara Baara li mu wax nee na. Hmm. dafa ci li mu wax dafa ne. Hmm. Euh, euh, première euh, première dame da ko doon xool na ko yaa fi bëgg a jëlee sama sama waaj maanaam yaa ko nar a wuut dama lay. waaw ma man bërëb ba laay laaj ndax maanaam loolu parce que li indi jaaxle nit ñi bañ ci commentaire bi ci wax. Hmm. bokk na ci fañ ko defee. waaw waaw xam nga bu doon neneen lañ ko defee ak feneen lañ ko defee. jàngat mën nañoo ko waaye maanaam bërëb ba. fañ ko defee man jàngat bi ma caam jàngat bi ma caam a baxaar si jàngat bi ma caam mm. comme ni nga ko waxee barab bañ ko defee ci kanamu xalif ba ak sëñ Bass Abdou Khadre jàngat bi ma caam mooy nit ñi dañuy politique ba ci biir kanamu xalif dañ ko fàtte rek waaw waaw maanaam dañuy politique ba ca kanamu xalif bi. dañoo dañoo tere xalif ba dafa tere politique bi Tuuba. ah waaw mu ngi noonu <laughs> njàngat gaa nga <laughs> waaw dañuy ba foofu parce que su fekkee Baara nee na carrément dafa wax ne. Hmm. ah yow yaa fi nar a wuutu première yaa fi nar a jëlee sama waa ji. sama jëkkër waaw dama lay kii. Hmm. yaa ngi dégg noonu di ko fooyee noonu kon. kon kon ayul sax. waaye nag man damaa jàpp ni li indi ak euh, jaaxle yooyu ci kanamu askan bi nga xam ne yéen leen jiite. Hmm. ñii jiite leen ci wàllu wàllum diine ak tarixa hmm. yow nga jiite réew mi hmm. jiite wàlla ñun ñëpp première dame di yaayu réew mi yëpp hmm. yow moom ngay sëtu eh, Serigne Touba man jàpp naa ne bërëb bi jotaay bu toll noonu bu taxawee beneen yitte waroon naa am bu dul di di di defante ay gestes ci biir image ñu di leen photo de toute façon ah, man bon de toute façon euh, Baara euh, comme li bu weesoo wàllu ëdëb ki Baaro xaw naa wàññi tuuti parce que am na ñu bëri ñu xalaatoon leneen dèjà bi mu génnee wax rek. Hmm. Euh, tax na ñu bëri xam ne. kon rek li mu am na solo loolu grandeur na solo waaw. baax na tamit euh, ndax euh, dina wàññi tuuti. Hmm. ñun ñu bëri defoon naa ni sax image ay montage la ak yu kenn xamul. Hmm, waaye xam ne donte loolu moo fa xewoon. waaye la taxoon mu xew wax na ko. loolu dina wàññi lu bëri nañu def nag aussi tamit loolu it conseil bañ di gaaw a jugé. parce que tamit man jàpp naa ne am na yoo xamante ne bu nekkee ci xelum Mariam Faye. man jàpp naa ne xanaa du caméra yi dañuy tax taxaw xoolee image di ko jël muy mu ko muy def yenn gestes yi. ba ñuy jël wax ji di ko classé fu mu nañuy def nag réew mi tamit ñun ñëpp ko bokk. dëgg la ñun ñëpp jàmm lañu bëgg. dëgg ku ci wax ak ku mën doon jàmm rek lañu bëgg. dëgg la ndax gis nañ réew mi ni mu dalee nii. la ñëpp foogoon la ñëpp doon xalaat foogoon ko ci weesu yëpp. Hmm. amul. Hmm. dëgg la ñëpp taxaw nañ fii. ku ci ne yuuxu à voix di wax ne bës bu ñu téye Ousmane Sonko réew mi dina tàkk nangam nangam. ñu ngi nii. Hmm. téye nañ ko kenn gisul gisul réew mu tàkk. Hmm. donc réew mi li ñu baaxoo doon ko wax yàlla daf fi def tawfeex daf fi sutura wàccee fi ay nit ñu baax ak ay mag ñu baax. Hmm. liñ fi bàyyi woon mi ngi fi sax dàkk te fi jëm. donc loolu nag comme am nañ gëm-gëm boobu man jàpp naa ne loolu moo tax boobu ba léegi. yàlla di def sutura. ñëpp ko baax na. ku ci ne da nga am yéene ju rafet ci réew mi rek. donc nag ma jàpp naa ni. loolu mooy li waaw yëg-yëg yi ñoo bokkul. macha allah tolluwaay yi ñoo bokkul. macha allah loolu mooy ak tolluwaay. Hmm. man jàpp naa ne mu yóbbu Ousmane Sonko ci kaso bi. dëgg la dëgg la jàmm ak bëgg mu sore. Hmm. moo ko yóbbu ci kaso bi. wallaay Macky nga xamante ne ak ñii ñuy jiñ moo moom ñoo fexe ba mu dem ci yoon bi man damaa jàpp ne seen njort moo leen may ni waa ji bëggul jàmm ci réew mi wala du indi jàmm ci réew parce que baat terrorisme ba ngay dégg mooy waral ñoom ñu xaw a tiite ci benn côté dinañ ko teel a arrêté sinon mën na fay indi te tel n'est pas ci li ma yaakaar man boobu. dëgg la dëgg la xëy na ñoom ñëpp seen yéene la ñu am ci réew mi lu ci mën ci nañ ko rafetal rek te ànd ceeg ak dëgg la mooy li ma waxoon rek politique. Mhm. baatu adversité la. yow da xalaat ne. Mhm. kii ma àndal. Mhm. mën na defar réew yaa ngi dégg. yow da nga xalaat ne kii nga àndal mën na defar réew man ma xalaat ne kii. Mhm. bu jotee ci réew mi mën naa def lu raw sowa maanaam waroo ci gis-gis la waaye du ay haine léegi nag dafa dem ba dafa soppeeku waaw haine moo ci war waaw dañ dem ba soppeeku da ngay gis léegi man dëkk bi jamono ñu toll nii su fekkee wax nañ dëgg rek mhm. euh, libération pri euh, euh, prisonnier politique yi su amoon mhm. jàpp naa ne dina créer benn réconciliation dina créer waat li tubaab di wax la cohésion nationale. Mm-hmm. ndax fi mu toll nii képp ku ñu jàpp. Mm-hmm. képp ku ñu jàpp doomam. Mm-hmm. est-ce que waa benn bokk yaakaar bu ñuy def bu ñuy dem di di def ay ay seen seen proximité danañ dugg kër ga. ku ñu képp koo xam ne tey tey jii sa sa mbokk wala sa nijaay wala sa pap wala sa kii jàpp nañ ko. ah est-ce que waa APR mën nañ fa am carte hmm. donc yooyu yëpp nag léegi euh, moo tax ma wax ne comme ci élection yi ñu dëgmal hmm. doon na baax hmm. euh, président Macky Sall euh, yokk li mu nit ñi kii yi mu bàyyi wax naa ko démb ci suma chronique bi nee naa carrément bu ñu xoolee bu ñu xaymaa li ñu bàyyi téeméeri nit ak juróom benn e ah la e ëpp xam sax génn bu weesoo Cheikh Bara Ndiaye sëñ Assane Mbacke mais ñi ñu xam dëgg ab xaar mm. mais Abdou Karim Gueye xurum xaar mu ngi ci kii bi mm. ci kaso bi mm. Cheikh kii nu mu tëddee Euh, Omar euh, euh, Cheikh Omar Diagne. Mm-hmm. mu ngi ci kaso bi Boy Ousmane Sarr activiste mu ngi ci kaso bi. Mm-hmm. Nit Dof mu ngi ci kaso bi. Mm-hmm. nga jël ku mel ne comme Fadilou Keita mu nekk un haut cadre. mu ngi ci kaso bi. tey jii Bassirou Diomaye fay mu ngi ci kaso bi. ñi ñu gën a xam ñu ngi ci biir kaso bi. ñee nekk ay des de des des hauts cadres de l' administration sénégalaise. doon servir seen seen réew. waaw nag dooguma la fa waaye ñooñu nag moom génn seen génn arrangé état parce que ñooñu ñooñu bu ñu génnee dañuy wax am xaalis koo wax a tax ñu dee leen hmm. da wax jooju arrangé wu man jàpp naa ni bu ñu leen naroon génne dañuy xoolaat affaire yi mais Abdou Khadre na leen ni bu ñu génnee dinañ leen mën noppi doo c'est ça ah, loolu moo tax génne mais ñoom dañuy politique dañuy politique ah même Cheikh Bara Ndiaye bi ñu bàyyi ni bi ñu bàyyi nii wax da jàpp day wax dana waxtaan non Cheikh Bara wax eh, sëñ Assane Mbacké bu Pastef dana waxtaan ah bon bu Pastef Touba. daa waxtaan mais dañuy politique. waaw léegi nag loolu politique ak kaso bu ñu génnee duñ duñ noppi de. waaw duñ noppi mais hmm. moo gën maanaam fexe ba loo xamante ne nii famille réconcilier waat. gis nga nit ñi bu ñu génnee kaso. lu hmm. ne ni tuuti benn réconcilier. waaw du ñu génnee ñu noppi wala ne ñuy mais ñoom ñuy politique ci réew mi lañ bokk am nañ droit wax seen xalaat. mais ñu leen jàppee teewul du dee. ci réew mi xam ni ñuy wax. mais wax. ñu wax lu leen delloowaat ci kaso ba Euh, Aboubacar. Mm. Falidou Keita. waaw luñ ko jàppee benn post bu mu def. Mm. à travers sa page Facebook. Mm -hmm. ñu jàpp ko. -hmm. yaa ngi dégg. nga jël. nga jël euh, nga jël ku ci mel ne par Bassirou Diomaye Faye mm. post bu mu posté ci sa page Facebook ñu ne dafa def outrage à magistrat maanaam dafa xotti war may magistrat mm. ñu jàpp ko ci kaso bi mm. et wax naa ne carrément euh, démb je l'ai dit dans mon dans euh, dans la chronique que je faisais maa ngi koy wax démb ci chronique bi ma doon def Moustapha Diakhaté waxul dara bi ñu fi laatu ñuy jàpp Ousmane Sonko waxul ne carrément ñu ñu ci war a jàpp nañ leen jàpp ñu ñu ci war a rey ñu rey leen ci un ancien ministre de la République. Mm-hmm. un ancien président groupe parlementaire. moom est-ce que war nañu yëkkati kàddu yooyu. et pourtant mu ngi vaquer ses occupations dëgg yàlla ku ci mel ne Ahmed Suzanne Camara. Mm-hmm. ñaata yoon la wax ne Sonko dañ ko war a rey. Mm-hmm. mais fekk ko ci donc yaakaar naa ne par exemple ku bind ci page Facebook am wax dara ñu ne carrément dafa def appel à l'insurrection wala dafa tenir des propos irrévérencieux à l'endroit du président de la République. Euh, ñu téye leen yóbbu la ci biir kaso bi alors que ñi nga xam ne ñu ngi fare côté bale ñu ngi wax pire que loolu. Hmm. ñu ngi ñu ngi ñu ngi doxi seen soxla. voilà moo tax nag yooyu. Hmm. ma jàpp ne ñooñu. Hmm. sëgam mën nañu bàyyi ñee ñuy wax leen ñii war nañ leen mën a jéggal. ci seen njuumte googu. Mm. war nañ de mën a jéggal. jaar na ne waaw waaw jaar na ndax ci réew mi bokk. voilà nañ leen jéggal. Mm-hmm. Euh, nañ leen jéggal te yokk euh, libération yi aussi. Mm-hmm. Euh, détenu yi nga xamante ne ñu ngi ci biir kaso yi te yàgg fa lool. Mm-hmm. seen i mbokk sonn nañ. nañ leen nañ leen yërëm. nañ leen yërëm nañ leen bàyyi ñu dem. bu ko defee bu ñu génnee ñoom it dinañ xoolaat seen taxawin ak seen doxalin ndax li ñuy wax rek sànq réew mi li ñu yiteel ñun réew mi li ñu yiteel muy Ousmane Sonko ka muy Macky Sall ak ku mu mën a doon na nekk kuy jàmm réew mi te doxal réew mi ci niñ ko bëggee waaye kenn indiwu fii sant maanaam woowuñ kenn ci koo xam ne da ngay ñëw fii li ñu indil xiiroo ka ŋaayoo wala koo xam ne da ngay ñëw fii ut par parloo ku ma am day ku ma amul day soxlawuñu loolu lu doxal réew mi nit ñëpp mënuñu yem les mêmes pieds bu fekkoon ne noonu la nar a doxee yàlla kon moo koy defal boppam mm-hmm. ñëpp mun ñoo yem ni ko olof yi di waxee képp koo xamante ni bi ni xamoon nga fu say mbir yem xaw ma nu ñu ko waxee sax ku sa ëllëg bu ñëpp yemee hmm. am ñu gedd seen cër dëgg la waaw noonu la ko waxee donc kon ñëpp mënuñu yem yemale lépp tamit mënu la ne waaye nag li fi ne mooy mën nañoo fexe ba ki nga yemale ki nga yemalul mën nañoo ñëw a ràññeente ci seen biir ci benn réew bu ñu bokk donc bokkoo gi nañ ko sàmm nañ ci nañ ci nañ ci dolli ay ay jéego yu yaatu yaatu yaatu te loolu nag message la boo xamante ne bi nii ñi nga xamante ne ñoo yor doole hmm. ñu nekk nii doon dese sax nañ ci bàyyi xel. danger looy tàggatoo. waaw loolu lay tàggatoo ci sa kàddu yooyu nga wax ne yooyu foofu laa dama lay dama lay damay toppaat ci sa gannaaw rek. sa mm-hmm. kaddu yooyu. Mm-hmm. Euh, kàddu yooyu nga dënk ah, mm-hmm. mooy kàddu yi nga xam ne moom la xalif bi dënku. xalif bi dafa wax ne. Euh, ci màggalu Tuubaa gi ñu nekk. dafa ne képp koo xamante ne nii euh, boo jiitee da nga war a yërëmaan da nga war a yërëm. kon ñu ngi sàkku ci président de la république. ñu ngi sàkku ci njiital APR di président Macky Sall. mu yokku njéggal gi. mu jot a mu yokk ko. Euh, wax ne euh, du wàññi du wàññi dara. Mm. ndax jàpp naa ne sax euh, fa ñu dem guddi yiñ toll nii. Mm. boo jógee ci kër kilifa gu mel ne xalif général. mu wax ne carrément. nay euh, ab njiit dafa a jéggale. ba pare dal na tamit ci ku jéggi. nee na ñi ngay ñi nañ ko ut ci ci utinu nañ ko ut ci élégance nañ ko ci jàmm. Mm-hmm. waaw nañ ko ut ci bañ a yee fit. très important waaw waaw nañ ko ci maanaam ci dal. Mm-hmm. nañ ko ut ci jàmm waaye ki nga xam ne tamit moo jiitu di président la président Macky Sall. Mm-hmm. na yokk njéggal gi. kon nag euh, wax yooyu nga xam ne moom la xalif bi dënk. ñun tamit ñu ngi ko koy ñaan. ñun ay citoyens xeebu fii ci plateau bi mm. ñu ngi koy ñaan mm. mu yokk mm. jéggal gi maanaam ñi nga xam ne des nañ ci kaso bi ñi nga xam ne nii dañ leen placé sous mandat de dépôt jugé guñ leen. Mm-hmm. mais ñu may leen liberté provisoire. ñi nga xam ne par exemple daan nañ leen ba pare ñu gracier leen. c'est vrai mën naa ne. ñu daan mm-hmm. parce que moom nee nañ par président de la république di def grâce. Mm-hmm. il faut ñu jugé nit ki ba ne tëj nañ ko mi at moom ci lay doog a mën a am sañ-sañu gracier. bu gracier leen. mais ñeneen ñi nga xamante ne nii jugé guñ leen. dañ leen placé sous mandat de dépôt. ñu may leen ñu am liberté provisoire parce que nag tamit am na ñu fi am liberté provisoire ñoo xam ne ba léegi déggaatuñu leen. Mhm. su fekkee dañuy wax rek. Mhm. mais euh, pour bu ko buñ fi buñ fi commencé du jeex. dëgg la mais mhm. euh, sunu euh, sunu mbokk Bougazelli. moom liberté provisoire moo ko bàyyi ci ci ba léegi. waaw bëri na bëri na boo ah, ko fi doon si toon Ndoura gi nii tey jii dañ ko accusé woon mais lu ñu mujj wax ah libéré nañ ko pour lan bénéfice de doute. donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne bu ñu ci sukkandikoo euh, ñi nga xam ne dañoo fare bokkuñu ak président président Macky Sall ci wàllu xalaat. Hmm. du tee moom moom moo leen yilif parce que hmm. moom mooy la clé de voûte des institutions. waaw moom ñu ngi koy laaj ñu ngi koy ñaan ah plus de clémence. waaw mu gën a. woyofal na yola gën a gën a woyofal na yolamal président ñu ngi lay ñaan nga yolamal. Hmm. jégal gaa yi jënd demaat ci seen njaboot askan wi nekk ci jàmm. ñu dee di ñaanal ñëpp jàmm nag euh, ñi ñu suivre ñu fare réew meeg bitim réew ñu ngi leen jàmm ak euh, mucc ak tawféex ak xew bi yaatu yaatu seen émission la woon xel-xel yi ba beneen yoon incha allah. jërëjëf frère. jërëjëf.